Laylatul Qadr ni saaru xalil la de makiyatul ko ma kala ismaani ñaar la waxal ko juróom fukki ayatul ci saatu bismillah ni waxal ci jibur rahmaan ko daal teewal ni nga xam ne ci yaar yaar rahim ko daal teewal bi sa bakra ni ni la wala ala umma ya xam murad ci ni mom di ci ni ya harafi bokk saay baasim bokk saari la bokkoon loolu gën a wér ci seen firi waaye wal xalam yi gëñu na ma xalim bëgg gi nga xam ne ci la yàlla bindee lépp lu nekk ak lu fasoo nekk ba pencam yàlla wa maa yasturuna la ñuy bind ñoom malaaka yi ak lépp lu malaaka yi di bind suuf ak xay maa anta déet yow di nag noonu nga di koy bindeel bi ne ma ci rab bi ko ci sabab si xéewal ak borom sa rek mu ne gën naa ci xalimba gi yàlla bind yëf yi ak malaaka yi bind ak la ñuy bind lépp yow xay yonent yàlla Muhammad dina jàpp ko de ci sabab si xéewal gi nga xam ne yàlla jox na ko ñu dee ak yonent ba muy woo bindee na jëm ci yàlla ñu ne ak jinne la déedéet duut ak jinne da ak yonent la rek yonent ne na sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla jëkk a bind mooy xalimba ga de bam ko bindee na ko bindal mu ne lu may bind lu nekk ak lu fasoo nekk ba tënkal yàlla mu bind lépp lu nekk ak lu fasoo nekk yàlla taste téeréem ba nga xam ne mbind ma tane na lépp luy xam xam na ba noppi gannaaw ba yàlla bind xel ba yàlla bindee xel ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal mu dem maay kan yaay sama borom bu mag yow yaay kan maay sa jaam ba toro mu ne musuma bind mbindee moo xam ne yéene naa ko ni yow danaa la matal ci képp koo xam ne sopp naa ko waaye danaa la wàññi ci képp koo xam ne dama koo bañ de gannaaw ba yàlla bind bakkan ne ko dëddul mu dëdd mu ne jibritil mu dëdd mu ne ko may kan mu ne ko yow yow man a man mu ne yow yow man a man nga ma tontu fab leen yóbbu safara ñu fab ko yóbbu ko ca safara lakk ko junne at génne ko indi taxawal ko ci kanam yàlla yàlla ne ko may kan mu ne ko yow yow man a man mu ne yóbbu leen safara laa ñu yóbbu safara lakk ko junne at delloo di ko maay kan mu ne yow a yow man a man yàlla ne yóbbu leen safara ñu yóbbu safara la kati ko julleer moom mooy liñ def da nga am yool boo xam ne xamu ko fap ndax yàlla xen na ko xen boo xam ne mosu ko xen benn jaam Muusa ci Firawna rek lañ ko yónni woon xatar gi day ni jànkoonteeg Firawna mu nangu ko looloo sooral maqaamam kon nag Muhammad mi nga xam ne dañ ko yónni ci ñëpp mu xëy di kenn àdduna yëpp ñu noonam mu yàq diine ñëpp ñëpp di noonam muy kenn mu nangu loolu te loolu kay ngay ba péntam yàlla kooku kay ab yoram baam dayo de moo tax ba yonent yëpp moo ci gën wa innaka naka yow yonent bi daala xoloxin aji nekk ngekk jikko asi min jide aji mag mu ne ko yow yonent bi ku rëy jikko nga yàlla ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taggewu ko dara lu mooy naka rek sa jikko baax na moo tax kuy xeef jikko ju rafet rek dala xamut mbiram yàlla yonent bi nga xam ne mooy gën ci mbindeef jaamu yàlla bu ne moo ci mën jaam yi moo leen gën a muñ moo leen gën a sant dañ tuddee ko Ahmad ak Muhammad ak Hamid ak li ma am ci ngëneel yëpp yàlla nga koy tagge rek jikkoom ju rafet te yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jëkk a tëral ci bés ko lépp jaam bu pencam yàlla bu ñuy peese ay niwoom jikkoom ju rafet de moom la ñuy jëkk a peese moo tax jikko mat naa rafetal de nee naa leen waaye jëf ji dina bëgg a jëm ñëw ci dàkka ja yonent ne waaye ngi ñëw ci buntu ba ne lay duggee ci ñun aljana la bokk ñëpp yi xool buntu ba Abdoulaye mi salaam ñëwee fa saa lañ daal di ko laaj ne ko luy sa jëf ba ñu ray ko ndax yonent ne ci ñun aljana la bokk mu ne di julli yu bari di xeer yu bari waaye daal ma tey am naa paspatu danaa xen di ci ba ngoon jot sama xol bi du ma ci bañ kenn sama lan yi du ma ci wax kenn lu bon du ma bonante danaa danaa ma wéeru ba fet fet sama xol bi du ma ci bañ kenn sama lan yi du ma ci wax kenn lu bon loolu daal laa yaakaar ne moom la ñu ne ko xam nga ne loolu la yonent ne lab daani bi sama xeet gën a nit ñi julli yu bëri ak koor yu bëri ak sabax yu bëri ñu dem ba gën rek xol bu mucc ci mbañal ak kenn wala naan kenn wala réew ci kaw kenn ak lam ñu jàpp xëy na lu di ko wax lu bon. dinañ xam ne dinañ Babacar bëri nañ ci bëri jiw yu bëri jiw yaa ngi leen yu bëri gën na leen rek loo xam ne ñu ngi ci xolam. laaj nañu ay sa ne ko yàlla ni kat yeneen ci jikko moo leen jikko yonent bi mu ne jikko mooy alquran rek su bëgg a xam ne jikko yonent rek na jàng alquran lépp lu alquran sax di jikko jëf joo xam ne alquran tagg na ko rek loolu jëf yonent jikko ju alquran tagg rek loolu jikko yonent lépp lu alquran bañ rek loolu yonent laalu jë dara su bëgg a xam yonent rek na jàng kaamil bi lu tax moom mooy alquran yi dëgg-dëgg bi kaamil bi mooy alquran yi nelaw yi moo tax mu ne ñoo wutale parce que tëkkiroo xam ngaa gis way tuuti xam nañoo gis ñoom gars yi itam kan ci ñoom la almas te luñ dina rek yow ak ñoom ñëfar yi da nga gis ñoom danañ gis ndax ci ci dina jàpp ci yéen ñaar ndax yonent yàlla Muhammad la dina jàppoon am ñoom ñu koy weddi ñoom la dina jàpp. dina rab ka naka borom sa wa moom alamu aji xam la mu ñu moom bala ca réer na moom sax ñu wala diine wa moom alamu aji xam la mu dina te dina ci way jublu xalaat te bul topp am kat dina way weddi waaye bul topp ñëfar yi de yàgg na li bët nañu lawtu bi ñu ak ñooy fa ñaan leen tey di ñoo tey ñooy ñaan la ba yéefar yi dañu ñëw ci yenn bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xuloo beeg dogoo beeg xeex bi métti na léegi nañ juboo nañ juboo ñu ñëw ànd ak yow jaamu sa yàlla yi ren ba déwén loolu ñu ko ànd ak ñun jaamu sa yàlla yi beneen at ñu naa dem sa yàlla te nangoo loolu rek ñu juboo moo gën xeex moom la yàlla ne ko bu leen topp rek mégat nañ nga nooy jëm ci seen wàll ñooñu ñu nooy jëm ci sa wàll waaye bu nangu loolu de mu daara tongo xaraam na bokkut ak mu daaraat mu daaraat moom yonent mu ne sadax la mu daaraat naa fi sadaqatin na ne bonestu mu daari yan sa daaroo yàlla yónni na ma sant ma mooy mu daaranteeg nit ñi kon nag yéen itam jëleen mu daaranteeg nit ñi mu daarante sadax la mu daana xaraam na bu fekkee du kéefar sax lii fenn buute nag mu daaraat soo seetee maanaam yëpp lu ñu jëm ci joxe àdduna lu tëdd na nit lépp loo mën a bàyyi ci sa àdduna lépp loo mën a jox ci sa àdduna lépp loo mën a ñàkk ci sa àdduna lu tëdd na nit ki loolu mu daaraat la mu daana nag mooy joxe sa diine rek ngir sa àdduna mucc lépp loo def mu safaanoog sa diine ngir bëgg àdduna tax nga def ko rek loolu mu daana la kooku moom aram na mu daaraat sadax la mu daara xaram na mu daaraat lu tur yi bëri bëri bëri bëri jàpp ko ci tënk boobu rek lépp loo joxe ci àdduna nit ñi ko diine mu daaraat la mu daana lu tur yi bëri bëri jàpp ko ci benn baat mooy loo wacc ci sa diine rek ngir bëgg àdduna rek mu daana la rek rek ndax nga xam ne xeefar yi dañ bëggoon yonent nabanteeg ñoom nangu dara ci seen baat yi rek ñu jubal moom boo ko jubalu ñu jëriñ wala su tikku laa laafin kooku wàcc na ci wala yi ñu ma ko rafet nga xam ne xabaaram dina ñëw fi léegi jasaaru mu def ni insha allah yàlla ko naa wala su tey bul topp moom la ñu ñëwoon su laa laafin lépp gëñaa ko na nar bul topp wala yi ñu ma ko rafet gën ko la te lépp lu ñu gën dafay san may nin ko daa aji xeebu bu ñu rëy ni ñëpp nag yàlla na ne ko xeebu la ndax jëmmam dafa soofal ma nga xam ne doo ko gis ñu ko tekk kilifa amma tin ku di jowaa ko nam nit ña koo xam ne foo ko gis ma ngay jow rek amul waxtaan wu may jow masayin ku di doxaa kon dina mi min ca mbaaj te abra mbaaj la boo xam ne ñaar ñu jaar seen diggante rek daqale leen rambaaj kan nag doo ko gis mukk lu may doomu haram la koo gis mu ngi rambaaj ci caqale diggante xarit rek bu laajte mën naa hen ku di saraxaa kon lil xayri ci ñiw koo xam ne du joxe xaqi xaralam moo tax ñu tudd tooñaa ko na nit ña ak ñu tudd bëri ci bakkaar ma tudd ku dee aji ñaaw jikko ku dee aji gànjañ zani min ku dee aji sofi ci kuréy sin dafa saa di ci gannaaw loolu gannaaw melo yooyu yëpp nag doomu njaaroo la bàyyam bi ñu koy juddoo judd ko alquran a wax loolu yéen toog ba guddi ñu daal di fas xeejam dem fekk yaayam ca néegam ne ko yàlla Muhammad lay xas na ma fukki xas juróomi yent yëpp xam naa ko ci sama bopp muy dëgg benn bu ko fukkeel na yow rek yaa ko mën a xam mu ne sama bàyyi juruma wax ma ci dëgg nag léegi wala ma rey la ah mu ne ko wax na dëgg de sa bàyyi suñu yàlla woon du jur doom te alalam dafa bari woon ma ragal alal jële ci ñun ma jox sama bopp sàmm ba xam ñu borom sàmmal gëlëm yi moo la jur moom walit moomu mu ne ma man de xamu na may def ak Muhammad mi rek mbooleem fukki xas yi ma xasoon yëpp xam naa ko ci sama bopp di ko fukkee yoon sama yaay dëggal na ko rek soo wane Abu Jahl mi nisaam rek moo ko waaye moo ko xalak waaye moom gëm ko na doomi njaaro nag yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na du dugg aljanna mukk ak doomam ak doomi kooka ba ci ñetti kër yonent na ne dañ leen di sant pénjam yàlla ci melaw golo ak ci mbaam tugal yonent sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax ci doomi njaaro fóote yi nag ne waaw lii doomi njaaro ndax mooy doom bi njaalo ba mu dugg ci njaalo bu fekkee kooku la kooku lu mu def moom defu dara bu fekkee def na ci safara daal dem na safara ci bakkaat boo xam ne moom defu ko ñeneen a ko def te yàlla du tooñ kon nag doomu njaaloo ju yeneen te wax ne du dugg aljanna mukk kan la mooy njaaloo kat bu dëkkee njaaloo nit nga xam ne xare kat boo xam ne du tàggoo xare saa yu ne mu ci xare dañ koy wax ne doomi xare la naka noonu itam ku nuur ci njaaloo moom la ñuy wax doomi njaaloo bi dee moom dafa judd woon sax ci yoon waaye doom bi nga xam ne ne moom sos na ci njaaloo kenn ci jaamu yàlla yi rek la su baaxee jaamu yàlla bu baax la su bonee di jaamu yàlla bu bon loolu moo wét an kaana ngi dem nekkam saamaalin di borom mi borom jur wa bañ na doomi góor moom wahid nag li ko tax a dow mooy lan dafa bëri woon xalal bëri doomi góor de amoon na fukki doomi góor ak juróom-ñett moom wali nu ma nu ma ko defee rek moo jub Xaalid mu wali isaa tullaa doon jàngeef naa lay ci moom ayaat naa alquran suñu xaala mu wax ne asaat nit la wërëm mari ma bu jëkkee waaye rek loolu daa wax ci alquran kuréel yëpp na kay di waxtaane melo yi yàlla melale jaam bi kan la ci ñoom moo ku mu ku yàlla Muhammad bi di wax ñu naa wali mu ko defee la ñu naa xaasi ibnu waaye la ñu naa ubay ibnu xalaf buur naa dana fi mu xoo xam ne moom mandargaal ko alal kortoom bi suñ dagg bakkanam xelal ci bagar rek suñ xare bagar xelal suñ dagg bakkanam rek kooku laa wax bañ demee xare bagar ñu dagg bakkanam ñëpp xam ne mooy wali mooy wali de ñu naan naka moom balaw naa nattu na leen ñoom ñooñ makka ci xati bekkoor yi juróom-ñaar ak suñ dama balaw naa naka mu nattoo ma fàtte jëna ci waroon aljanna ci waroon tool ba rek yàlla natt na ñooñ makka nam na toon waa tool ba ak sama bañ jëñee si mun naa walaay danañu sàkk ko mos bi na mit mu ngi way sugalu walaay sotti na sotti si dañu amoon seen daal dafa amoon am tool boo xam ne xeeti nañ ñi ñëpp nga ca at mu nekk bu koy sàkk dafay wax nit ñi yëpp bañ daje bu sàkkee ba noppi indi rek lu doy si ndëptëram da ca def mu ne nit ñi sax benn séddoo loolu doon daa xam dam dee moom borom tool ba dam dee nag bay ay doom doom yeneen ndax ñu duñ bàyyi nekkee woon ñun duñ ci wéy bu ko wéy doolam rek wàcc ko ñu ñu seddoo ko dem ñun duñ ko def tool bi jot naa góob boole yéen nañ koy góob ko te bu foofu mel ni nit ki ñëw suñu góob rek seddee suñu góob moom kan la woon mën naa def loolu sax waaye ñun mbaloo fa taa fa tawaj ala wàcc tool ba taay fina safara wu daa ji wàcc mi ndax bi ko tukki fa borom sa safara wàcc ca tool ba guddi wowum ko ñoom naañ moo ne way nelaw lañu lakk ko ba mu jeex fa asbahat kon xëy moom tool ba te sëri ni dina ko guddi ko daa ji lëndëm yëpp bët seet nag fekk tool ba lakk na ba mel ni def jana ndaayaan ñuur fukk parce que naa daw tañ xoowante mos bi nit ñu ngi koy xëy te suba teel nag ñu ngay xoowante am na kam di dal mbir kooku doo xëy deen alaar sikm si njëriñ seen suñ ko dundam nekk ngeen saari ñu di way sàkk de ñun bëggee sàkk seen tool xew xew leen bët seet nag nañ dem sàkki kon ko waxoo tañ bay woon ko ñoom yata xaafatuna danañu diitoo yata xaafatuna danañu ñeetulante na nga xëy nag ñu ngay wax ndànk naa wax leen bu ko nit ñuy dégg am na kam di dal mbir daay xola naa bu xaraf alyooma tey nag aleykum si yéen miskin miskin de tey même miskin bu dugg suñu tool bi waxa daw tañ xëy ala xardin sib ci yiit ala xardin sib tere way ñàkk xaadiri na mbir muñ daway nag su lekk attan seen de ñu xëy na fokk ñu xaaree tool ba miskin benn miskin dafa dugg tey te booba gëm nañ ne mën nañ loolu daa si tool ba rek mu di ak ndaawaan bu ñuul fukk wala maa raawa bañ ñu gisee ko xaaral ñu wax ne naa naka ni la ba loon way réer lañu dañoo ñëw gis yi fii bu suñu tool ba ñu sa tontalaat ne ah moom la kat dafa lakk ñu ne bal bëri naan ñu maxaroo moom ñun xaj nañu réeruñ tey tool baa ngi waaye daal waaw yàlla da nga demee ñan ñi xaala wax aw sa tumum ak gëm seen alam akol ndax waxu moom lakkum ñeel yàlla dara sa dana sa ngeen sabal ngir ngeen di way tuub ñeel yàlla ba ngeen di wax ne da ngeen xaaye nit ñi seen xàq laa leen waxoon ne bu leen ko def ngeen tëma noonu naa leen na ngeen tuub ci yàlla nii seen pas-pas bi leen ngeen tëma xaaloo ñu wax nag ñoom ñëpp ñu delluwaat nag ci yàlla subhaana rabbina tuub nañ sell ak borom sunu naa ne ko ñun naa ne ko ñun waa yi nga di way toll de ñu ne dëgg-dëgg ñun ñoo tooñoon bi nga xamee ne way ñàkk ni dañ leen a bëgg a kañ seen xàq de faax bala te jublu baatuñ ñenn seen ala baatuñ ci ñenn yeesu laa mën a dañu yeddante ñu nga yeddante nag ku ne naa morom yaa ko fexewoon xaaloo ñu wax ne yàlla yoon a est-ce que nag xale ko sunu naa ne comme ku ne nekk mu faa dina di way joow ñu daal di dellu nag ma fa attan na rabb naa borom sunu ani bëgg dama bu ma ko lekk ma xaaral lu gën mu naa ko tool ba dinaa ne kañu baatu bon wala kañu ñu daal dina dem ci borom sunu ñu daal di tuub na dellu ci yàlla mais yàlla mën nañoo wutale sax lu ko gën yàlla wutal na leen ab tool nag boo xam ne Abdoulaye bi ma xam ne waaw gis na ko cëgg tàndoon bu ci nekk dafay day ni taxawaayam ni saa yi ko kenn ñu def ñu de alansaabu la dugal na ci alaxira wala ansaabu laaxira ci ndigalam alaxira ak bëri moo gën a màgg daw tax doon ci nekk rek yàlla moo ko xam ne bon gis ñu ndigal yàlla waaye inna lii mu faqee naka aju nekk la ñu ñaar way ragal ni yàlla inda rabbihim fa borom seen janaati na ak janaay xeewal de afana yàllu destinu al muslimina jullit ña kon nag ñu ngi koy yëkkatoo de maanaam ana loolu ngeen xëy na parce que mën na ngeen jaxatee bi jaxatee bu dëng de am bayit lakum ñaan lañu kitaab bu téere bu ñu wasal ñu ngi waaj tadrisuna def da ngeen jàng fii ci moom ina lakum naka aji nekk la ñu leen fi ca alaxira lama taxayrona da ngeen tànn ko de ne lakum naka aji nekk la ñu leen fi ci téere ba lama taxayrona lu ngeen tànn am lakum am ñaan leen ay naan ay kóllëre alena war ñun yàlla baale ko suñu diwee dëgër ilaa saamati bi ko tënkal yàlla maanaam déedéet inna lakum naka aji nekk la ñu leen lama tax mu lu ngeen xatte ñeel seen bopp yàlla soo wóolu woon yéen ne leen lu ngeen wax rek loolu laay def déedéet salum laaj leen ayum kan ci ñoom li kay mu aji war loolu bisari bi ci loolu am lawum am ñaan leen surakaaway bokkaale kon waate nañ jikko bi surakaaway ci yàlla seen jëleen gàddu loolu de in kaanu ngeen nekk nañu saadiq ne di way dëgg de pour jàngatal yow ma yëpp safu def ko def ni mu ñaan saaqin ci teer de jàngatal tënkal yàlla des ba nga xamee ne mbir ma dina topp ba nga xam ne ku nekk da nga wax ko teer de loolu njëg la ci yaaram bu mbir dafee rek ñu ne wax leen seen teer maanaam jafe-jafe ñëw na su tënkal yàlla nag ba nga xam ne waaw nga doon jaamu kañ doon jaamu ñëpp daje nañ ci benn pàkk jaana maa ngi teew ku nekk waaw sa jëfandiku sa ndeyjoor ak sa càmmoñ jarul ku nekk dana wax ne waaw wax leen teer rek boobu tax na te dee sa wala ñu lee tuddee mbir ci tuddee wala sama yàq la sa tënk taa tënk ñu def ah fi atam mbir mi ay jub tax ab taarum ay bët yéen bu ko defee ñu fële taxaw nag mbir mi ne ñoom waaw weddi ñu yàlla gëm nañ yàlla ne mbooleem ñu teew ci pénc yàlla ñëpp nañ rab nañ nañ rab si jóotale ñëpp rab si jóot féefari ñoom seen yaram yëpp yàlla def ko mu mel ni benn dénk rek mën a suñu ngangu yàlla ne si jóot leen ma ne ñu ne tort trop mënu ñoo si jóot ñu ngi janoog yàlla mu mbër mi te mënu ñoo def li leen dugal tarxaqu yi dana mun leen si lépp toroxte ñu nga torox lu tax loolu dalee nag waxat kaa noonu kon ñu raw na defe xooleen ci àdduna ila si jooju jëm ci julli ñoom te ñoom Sadio Manoy mucc lañ waaw dina yàlla daana woote julli saa yu ne ñuy dégg nodd ñu lànk ne duñ julli moo tax tey bi nga xam ne waaw bëgg nañu julli itam yàlla xam leen mënuñu julli de te sor ni dañu na wala ñu ko si waatu gën a woo di dee la di si julli alxuraan de yàlla ne wacc ma lay yow yeneen si maa képp ko yedde alxuraan kon sa jëf bu xam ne noo jëy leen ina si laale moom sa suuf xam si ñu ñu di ci ñoom wow mu lahum gën a ma yéexe leen ñu ne kay mi nakat jay fan man yàlla mat ñu aji doore de waaye wacc ñu julli ci àdduna rek di lekk kanaan rek xatte nañ li nekk ci seen kanam ba nekk taasi ci ñoom am tas am am danga laajoon ajran ak yool comme ñoom mos xaroo na ñun gisal lañu min maxaram ñu def tey am nag nga leen di laaj tey mais doo jotoon alxuraan bi ne dañ la fayee ñu ragal a perte moo tax ñu bañ a dem am na ndox mi am aji nekk la fa ñoom am taw bu faddu am lawi ma dafa nekk fi ñoom boo ñoom yàq bona danañu bind parce que bu ñu ndu ñu rabbi ko ci àtte borom sa yàlla dana àtte ci ñoom lu ko soob moom wala ta comme bu nekk saaxi bi dafa ci nekk borom jël la rek jël na yow ñu yónni sa indi masaa ci nga xam ne dafa tiit loon waaye ba gàddaay ci ndigalee boromam de gis naa dee ba mu woowee boromam ci biitub jëlee woo te moom nag woo nañ kuñ feesal la moom jàqare de ba nga xam ne mu woowee boromam ci biitub jëlee te boobu mën la feesal jàqare de loolu am sa daara ko woo bëggante ko nag dabaate ak yàlla ñaamatuñ kay wala ndax dañuy tukki boromam dañuy def konte sànni ko jël xaraay sa xarga woo te moom nag moom lañ ñaan la mu le yàlla ko dabaatal doo sànni ko sa xarga sànni ko dam ñaan ñi xam ne yàlla jëbal ko ñun ñaar ko ñu waaw doxal yéen te yàlla ko def waaye su ko yërmande yàlla dabaatal ko kon dañu ko sànni sa xarga fekk mu nga ñaan ñi rek ak ko doo te tànn ko rabbu boromam ci ak yéen ko te jaalo tam def ko ñu sa ñu ko ñu way yaakaar la dina tawal wala sa ko ko ak farin ko ko wasal wàcc na ba nga xam ne ñu xëri nee nañ nag léegi Muhammad mi daal ñu ne fexe nañ ko ko rek jëriñu léegi léegi nañ si boo xam ne ñooy bani afet ñoom ay dëmm lañ mën nañu ñu xool rek nga daal di dee nañ dem rek ñaaxal leen ñu raw ñu Muhammad rek ñu far noppalu ñoom nag suñu bëgg a def loolu dañuy tuutal seen bopp ñetti fan su tukki nga sa bopp ñetti fan ba noppi jublu ci nga bëgg a rey daal boo ko xool waaw rek mu daal di daanu ñu daal di dem jëli ay seen seen i gars yi ca ban yaasa tuuta leen ba ñetti ñetti fan nag ñoo bëgg a jàkkaarloo yéen di nag pour rey ko buur ne woy yaakaaru na ko jagane la fi naa nekk fara wet nañu def di xool ko di dugg na bi asaari ñu ci bëtteen xool nañu ay nit ñoo xam ne dañ la dañ laa bëgg a xool rek nga dee lama fa ne dañu déggee fikra alquran wa yaquluna dañ wax ne inna naka moom lañ lañ lañ ci jinne lañ wa ma huwa deen moom ilaa dikru ndara waar la li alamin ñu ñaan bindee ñu teg jinne de laaj wax ngeen ci jàng ko rek waaw ñu ñëw mën a luñ ko dara laaj laajoo képp ku ko jàng bët mu laa wàññi dara génn mu laa wàññi dara njabar mu laa wàññi dara moom ñu wax ne waaw dañoo dëgg bëgg itam dara lañ lañ wàññi su fekkee dëgg la